Uh-huh. xëy na te yéen a journaliste yi tey euh, yéen bëgg a euh, jaxase waa APR euh, pour am loo leen bind wala loo leen wax. mais tey jii tey ngaa bañ a tuumaal nañu jàpp ne bu doon lu am APR ñu bind ko kon instant bi. nañu nañu nañu jàpp ne. Hmm? APR parti la bu mag la. te tey jii suñu njiit muy le président de la république Macky Sall moom la mais parti bu mag non c'est c'est le parti majoritaire may ma ma may ma ñëw rek. comprendre nga suñu njiit le président Macky Sall. parti qui n'est pas structuré nan lay non mais parti parti parti pourtant c'est un parti très structuré parce que tey ci biir APR am nga un directeur des structures muy Mbaye Ndiaye. am nga un administrateur du parti euh, muy euh, Mayel. Mhm. mais dans les départements euh, dans dans dans les départements mu am des coordonnateurs départementaux. ñun tey au niveau du département de Podor le coordinateur départemental s'appelle Abdoulaye Daouda Diallo. très contesté c'est quelqu'un dinaa si euh, non pourquoi nga ne nga ne très contesté pourquoi quelqu'un qui a gagné haut la main les élections législatives bu tey bu dul woon a un tout petit village comme ça comme ça non même pas ba pare nga bëgg a nekk le coordonnateur du département de Podor mais tey boo jëlee électorat ñum rek ñum rek xam nga li muy représenté ci Podor tey boo jëloon tey électorat commune Boké Diallo bi qui une commune rurale qui englobe beaucoup de bi nga xam ne c'est une commune qui compte dans le département de Podor au niveau euh, de l'électorat mais au niveau aussi ci score yi ñuy def. dans le département de Podor bokk nga ko méngale Mbumba mi nga def. mais bokk jàll ba moo moo moo ëpp Mbumba ci euh, en terme de population et de et, et, et xam xam nga xam nga lu tax. Boké Dialoubé c'est une commune rural hein, qui regroupe, regroupe euh, beaucoup de village alors que Mboumba benn commune la rek benn espace la jeex na c'est c'est ça la la la la différence xam nga bu njëkk bu foofu lu ma la koy expliquer euh, c'était de communautés rurales communautés rurales yu bëri nag ñu transformer leen en commune comme Mbumba maintenant euh, Bokki Dialoubé nekkoon si communauté rurale Pété Pété nekk commune léegi tous les villages qui appartenaient à la commune de euh, Pété léegi ñu ngi si Euh, à la à la communauté de Pété ñu ngi ci commune de Mbolo de de de Boké Dialoubé noonu la demee su ñuy dem tey ci yaa ngi wax ne euh, euh, fan la Mener féete wala fan la Abdoul bokkum féete fi ma féete wala fi ñu féete mooy fi président de la République féete d'abord le président de la République moom la ñuy déglu mais entre nag ñu ngi gis suñuy natango suñuy responsable ñu leen di prêter comme quoi que ne dañu bëgg Euh, nekk euh, euh, remplacer le président de la république Macky Sall ma yaakaar ne loolu aussi am nañ ci droit dès l'instant que président de la république Macky Sall nee na moom nekkatul candidat ku nekk si APR tey nga nekk responsable am nga droit ne candidat nga bëgg nga maintenant nous au niveau du département de Podor ki uh-huh. fa nekk responsable nekk coordonnateur de de de de l'APR muy Abdoulaye Daouda Diallo ah qui a qui avec le président de la République depuis 2012 qui a gagné toutes les élections de 2012 à 2022 qui était la tête de liste départementale euh, des élections législatives bu 2022 bi ñu passé mu gagné ko au la main ba ñu xam na xam nañ tey bu dul woon Podor bu dul woon Podor tey euh, euh, majorité bi ñu am au niveau de l'Assemblée nationale li ñu fa am as as tey bu dul woon l'électorat de Podor duñ ko am léegi bu fekkee nag Abdoulaye Daouda tey nee na moom dafa bëgg nekk remplacer Macky Sall ñu yaakaar ne am na légitimité bi am na euh, euh, vécu bi euh, sur le plan historique sur le plan politique et sur le plan institutionnel parce que dafa ni institutionnel moom li mu yor yëpp Macky Sall moo ko dégg. waaw waaw d'accord ba tey quand je parle institutionnel mooy par rapport ak expérience yi mu am ak fi mu jot a jaar tey mën nañu wax ne c'est quelqu'un qui a su donner corps aux visions du à la vision du président de la République par rapport à département ministériel yi mu yi mu jaar. bi mu jaaree intérieur bi mu nekkee infrastructure bi mu nekkee finance ak ak budget et cetera donc tey jii nii kooku noonu bu fekkee ne nee na dafa bëgg bu président bàyyee ñu jàppale ko euh, pour mu wutu président de la république ñun en tant que fils du département de Podor en tant que militant de la l'APR aussi dañ ci jàpp ñu ko si jàppale parce que ñu yaa ñu ñu ñu ñu ñu jàpp ne aussi yelloo na ko te gisuñu tey au niveau de la l'APR ku ko gën a yellool moom Ablaye Daoud. Hmm. gisuñu ko parce que nag nit ki nag euh, bo bo booy ànd ànd ak kuy gagné Abdoulaye Daouda à la différence des autres moom day gagné rek.